asalaamaaleykum mbokk internetu Sénégal mbégteeg bànneex la ñuy am euh, saa su ne di jàkkaarloo ngeen ci émission seen débat comme ni ñu koy defee àjjuma bu ne tey nag ñu am mbégte di recevoir euh, ci seen émission seen débat Saliou Keita nekk responsable APR Dakar Plateau membre de la task force républicaine ñu fa yéene waxtaan ak moom ci lépp lu aju euh, lépp lu soxal askan wi notamment le Sénégal ak installation bi di ñëw ci assemblée nationale bi. mais laataa ñuy dugg ci waxtaan bi honor nu mu tuddati euh, DG dañ lay bàyyi nga nuyoo ak internet lay seetaan jamono ji waaw euh, merci beaucoup coor di la remercier d'abord euh, ci invitation bi profiter nuyu kilifa kër gi muy Sénégal ak seen collaborateur yëpp waaye di nuyu auditeur ak auditrice yeeg internautes yi nga xam ne ni tey euh, ñu ngi ñuy seetaan fii si Sénégal mais également au niveau de la diaspora ñuy waxtaane actualité Sénégal et di wax ni ce n'est pas la première fois mooy ñëw Sénégal euh, di wax ni rek toujours am nañu mbégte ñëw di waxtaan ak yéen. Mhm. très bien Saliou xam nga ni le 12 septembre bii di ñëw ñu ngi jëm ci euh, installation quatorzième législature bi. mu nekk installation boo xam ne ñu jëm ci élection boo xam ne daanaka mën nañ ci xaarandi ay mbir yu xaw a seere boo xoolee résultat yi tukkee ci élection législative bi diggante opposition bi ak euh, mouvance bi te nga bokk ci mouvance boobu sax ñu ne 83 députés mu nekk majorité précaire tey jii nii xëcco bi metti na ci côté ki war a jiite assemblée nationale bi et tout ça ba sax am na ñoo xam ne tey jii ñu ngi bëgg a teg ay groupe parlementaire pour mën a gën a compliqué mbir mi yow ban lecture nga waaw di wax ni euh, effectivement euh, ni nga ko waxee le 12 septembre incha allah dinañu installer euh, quatre quatorzième législature à l'Assemblée nationale ginnaaw sénégalais yi demee voté. fal ñi nga xam ne ni ñooy dem à l'Assemblée nationale pour représenter le peuple sénégalais ñi nga xam ne ni tey ce sont les nouveaux députés di leen féliciter di leen encourager mais di leen wax surtout résultat yi ñoom war nañ ko décrypter def ci ay jàngat ngir seen taxawaay foofu ci assemblée nationale nekk taxawaay boo xam ne ni mooy orientation bi nga xam ne la peuple sénégalais loolu lay xaar ci député. alors tey jii ndax seen xel du xaw a jaxasoo tuuti bu ngeen déggee xëccoo bi am ak posture bi nga xamante ne opposition bi am na ko ba sax ñu fas yéene taxawal ay groupe parlementaire yu bëri dem nañ sax ba di leen di jiiñ ne da ngeen di jéem a corrompre ñenn ci ñoom. vous savez justement mën a am majorité bu taxaw. quatorzième législature xam nga le président de la république Macky Sall bi nga xam ne ni tey c'est le leader de notre coalition la coalition Benno Bokk Yaakaar may rappeler rek mooy que Benno Bokk Yaakaar coalition boo xam ne ni date de 2012 à aujourd'hui donc ça veut dire que coalition boobu si dëgg lañ ko mettre en place si bëgg Sénégal lañ ko mettre en place ba nga xam ne ni intérêt parti dañ ko teg à côté jiital askan bi looloo tax parti bu ne am nga ay jafe-jafe muy le parti socialiste muy l'alliance pour la république muy l'AFP le la l'ALD ñun ñëpp parti bu ne am nga ay jafe-jafe waaye jàpp nañ ni ñu ànd ku nekk taire les divergences loolu mooy tax ñu jëm kanam kon bu ñu ñëwee ba tey 2012 ba 2022 ñu am toujours la même coalition ça veut dire que foofu dëgg dama bëgg a ñëw te maa ngi ñëw dëgg moo fa am beneen côté bi mu am beneen coalition de l'opposition bi nga xam ni ba ñuy démarrer ànd seen ànd ñoom opposition c'était en deux mille vingt-deux coalition boobu moo tasaaroo en deux mille vingt-deux mais tamit moom moo jommal coalition bi nga xamante ne deux mille douze la juddu non duñu question du question jommal parce que bu ñu xoolee également chiffres yi 2012 nga wax. oui taxawal Benno Bokk Yaakaar 2019. dëgg la 2022 autant pour moi. dëgg la résultat yi dafa wàcc. wàcc carrément. xam nga je tout à fait parce que tey dañuy wax ni politique addition la mais pas soustraction effectivement boo ko analyser noonu di nga jàpp ni contre performance am na. mais yow jàppoo loolu. dañuy waxtaan. Mhm. bàyyi ma yeggali. da ngay jàpp ni contre performance am na mais man Saliou bi ngay laaj dinañ def une analyse approfondie de ces résultats là pour xam ni li waral baisse boobu lu bari la li ngay wax mën nañ ko nangu waaye dinañ ko argumente ci naka si naka. mooy que politique o delà bi li ñuy wax ni arithmétique la de un plus un égale deux mais dès nga def deux moins un nga jàpp ne contexte bi la mën na ko indi. ma ne contexte contexte bu mel noonu par exemple. contexte bi tey bi ñu jógee nii. boobu lay jow xam nga le président de la république élection Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne ni jóge nañ fa muy législative yi. électeurs yi ak li ñuy dégg ci opposition bi dañu dem ba bipolariser mbir mi tu es avec Macky tu votes Benno tu contre la politique du président Macky tu votes Yewwi Askan bi wala ngay voter beneen coalition de l'opposition mais Thior ñun Sénégal lañ dëkk 2012 ba tey ak régime yi fi jóge booy comparer en termes de réalisation tey kenn du laam-laame que le président Macky Sall am na bilan. mais est-ce que loolu pesé na ci balance bi ci élection moom laa lay wax xam nga moo tax ma jàpp ni politique pour man c'est des questions de circonstances aussi circonstances yooyu face à la crise qui est mondiale je dis bien la crise aujourd'hui elle est mondiale épargné wul benn gouvernement benn réew kon bu fekkee ni dañu jógee ci ay pandémie lu mel ni Covid 19 mu impacté ci suñu économie ñu ñëw xamaat dund lu ñuy wax la guerre Ukraine Russie loolu tam ñëw impacté waat suñu économie mais je vous dis le panier du ménager dina souffrir muy benn. kon loolu mu benn ñaareel bi moo si ñu nekk ci période hivernage avec les nouveaux quartiers yi nga xam ne ni politique assainissement biñ ci waroon a def defuñu ko aussi nañ ko accepter tey le président de la république bëgg duggal ñu ci dans la modernité vous avez vu le train express régional la question du du transport la mobilité population yi président indi BRT tout Dakar est en travaux kon loolu mu am opposition boo xam ne ni balaa ñu positiver ko mais dañ ko jël def ko benn arme politique contre le gouvernement. mais est-ce dans le rôle quand même. ils sont dans le rôle c'est pour cela je dis si on a une opposition républicaine du ay kàcc. du manipulation. looy looy tuddee kàcc ak ñàkk wax dëgg xam nga quand tu es dans l' opposition tu peux manipuler le grand public bi nga xam ne ni tey ñu si bari jàpp nañ situation de précarité bi ñu nekk yaa ko tudd léegi c' est dû. au gouvernement en place bi nga xam ne jëlul en charge toutes leurs préoccupations. da nga bi amul ci part de responsabilité. effectivement non le gouvernement non le gouvernement en place bi ngay wax naan ndax am na part de responsabilité d'une part oui mais ce gouvernement également nous sommes des humains l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. tey Saliou Keita avec le président de la République. jeudi nous avons un bilan bilan boo xam ne ni tey on a fait beaucoup de réalisations dans beaucoup de domaines. mais ça reste bilan boo xam ne posé wul ci scrutin bi ñu jógee. non je te dis damay doon ni ñuy waxtaan. si ci waxtaan boobu la ñu nekk. waaw mais moom laa xam nga tey moom laa l'expliquer lan moo tax. c'est-à-dire lan moo tax bilan boobu ngeen xam ne vente ngeen ko Sénégalais ci élection yi de posé wul ci balance bi. parce que gis nañ ne opposition bi quand même quoi qu'on puisse dire élection locale lañ jógee ñëw ci législative ñu ñëw confirmer département yu bëri. xam nga qu'est-ce qui n'a pas xam nga tey moi je félicite le Benno Bokk Yaakaar. même le score maigre. je félicite le Benno Bokk Yaakaar. qui conserve toujours sa majorité à l'Assemblée nationale. mais une majorité une majorité c'est une majorité. yaa comprendre. mais non moo tax li ngay wax précaire dinañ ci def jàngat ba xam taxawaay bi biñ ci war a am moo tax tey jii l'opposition bi ngay wax noonu man je ne crois pas à cette opposition parce que li ñuy gëmloo nit ñi ak actes yi ñuy posé c'est diamétralement opposé. parce que parce que gis nañ sax ñoom ñu ngi bëgg a teg groupe parlementaire yu bëri. mais c'est mais mais mais raison pour laquelle je vous dis ñoom mënuñu taxaw dans l'opposition. gëmloo askanu Sénégal ne crise mi ngi fii état bi moo ko indi yàq yu bari ñu ngi koy def mënoon na ñàkk pour ñu jàppale askan bi benn ñu ne ñoom dañuy rationaliser des deniers publique maanaam ñu yaxanal bañ a yàq mais kuy wax loolu tey ba wax ak askan bi ba électeurs yi jàpp ni yàq-yàq yi ñuy def fële ñii bu ñu ñëwee au pouvoir ñu bañ a jaf ye posé yenn yi ba nga xam ne épargne dinañ mën a épargner loo xam ne di jox askan bi mais ñoom tey bu ñu ñëwee à l'Assemblée nationale taxawaay bu ñu leen gis nii avant pour ñuy dem le 12 ñoom le 12 bi ñu bëgg dem nii buñ fa demee il feront comme les autres bi nga xam ne ñu ngi leen di combattre. les autres comme ñam. mais les autres comme le pouvoir bi ñuy wax ni tey bu ñu demee à l'Assemblée nationale euh, les députés les présidents euh, euh, président de l'Assemblée nationale bureau yi dañuy am ay avantages lu ne ñu koy def mais tey ñëpp xam nañu un groupe parlementaire coûte cher pour une Assemblée nationale. Hmm. mais kon parce que groupe kon exclure au niveau de benn bokk yaakaar tey jii ngeen seen en plusieurs groupes. non xam nga loolu c'est des stratégies politiques aussi parce que. boo demee aujourd'hui à l'Assemblée nationale mais tey bu fekkee l'opposition si di ñoom li ñuy wax askan bi du loolu la ñuy appliquer fii parce que ñoom bu ñu demee charge la le fait que ñu am ñetti groupe parlementaire charge la loolu ay avantage la pour ñoom mais ñun tey jii bu ñu bëggee ñoom bu ñu bëggee def loolu dañuy wax ni ñoom ñun tamit duñu leen bàyyi ñu dem parce que c'est des temps de parole qu'on va gérer aussi c'est des temps de parole qu'on va gérer c'est pour cela moi je beaucoup de calculs yoo xam ne nii euh, ça ne va pas. est-ce que tout cela ça ne parce que tey jii nii jóge ci. xam nga lal mooy dëgg non non on revient pas sur sa hmm? débat bi dépassé nañ li ngay wax. Hmm? débat bi xam nga tey mooy lan tey li ñu bëgg a def assemblée nationale est-ce que toy jii ak ñoom li ñuy wax. askan bi hmm. est-ce que méngoo na mais méngoowul moo tax tey jii ñu mel ni ñoom Birahim Seck société civile. mais ñu ngi ngañ taxawaayu opposition bi ne ñii yore seen laaf di naaw naan dañuy dem waaye yeggaguñu sax seen laaf yaa ngi commencé déplimer wu. Hmm, kon ça veut dire quoi hmm, non si naka mooy hmm, li ñuy gëmloo nit ñi mais ñoom ñu ngi weddi seen bopp balaa ñuy yegg fu ñu war a yegg c'est pour cela je dis c'est une opposition boo xam ne ni manipulation la fi nekkee ndax askan bi la fi nekkee surtout les jeunes. alors hmm. à travers les réseaux sociaux ñu ñu tuuti wax ci ci leneen muy déclaration de candidature yi parce que jóg nañ ci élection législative gis déclaration yi commencé jóg ça et là surtout côté opposition bi ci mel ni Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko. ils sont pas des c'est pas des démocrates. mais mais en quoi ils ne sont pas des démocrates. xam nga gis na une démocratie. elle est d'abord interne. dans son ñu ngi parce que sax DG que sax ñu ngi xaar. Euh, au niveau de Benno Bokk Yaakaar ñu xam également kan moo war a dem ci élection présidentielle 2024 boobu ñoom ñu ngi wax ni le président Macky Sall n'est pas un démocrate mm-hmm. c'est un dictateur c'est ça qu'ils disent mais Bougane qui est plus dictateur que Bougane dans mais am na dañuy waxtaan bëgguma du man bëgguma di tudd bëgguma ñu personnaliser parce que boo fi waxee tur dama koy wax. si mais bëgguma aussi ñu personnaliser. je suis d' accord avec toi ils ont fait des léegi nag je suis obligé tudd seen tur. Mhm. j'ai beaucoup de respect pour Bougane. Mhm. gëm sa bopp nit da ngay gëm sa bopp. j'ai beaucoup d' estime pour Bougane mhm. mais boo ma posé loo xam ne ni si ñoom la nga tudd leen. dinaa la apporter aussi des réponses par rapport à ça. ñoom bu ñu waxee ni tey le président Macky Sall guddeeg bëccëg li ñu wax te Macky Sall faalewu leen le président Macky Sall. lijjantiwu leen mais li ñuy wax mooy le président Macky Sall n'est pas un démocrate c'est un dictateur nanani et cetera la démocratie est d'abord interne en politique au niveau de l'organisation. Et on a entendu. le demi-dieu, si je dis, politique, Ousmane Sonko, qui pense que lui, avec lui, tous les problèmes du Sénégal seront réglés. mais maa ngi ñëw maa ngi ñëw. non mais même monsieur non c' est pas une question de temps. Mhm. c' est une question d' argumenter pour que sénégalais yi déglu ñu. dama ni mhm. organisation politique. Mhm. la candidature d'un leader, d'un leader pour élection présidentielle, process la. Je suis formé politiquement à Andejef PADS. Mais droit déclarer actuellement. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand tu dis que tu es candidat, ça doit être porté par la base. ñooy porter fu nekk. yéegal ko. mais un parti politique ça commence d'abord au niveau des quartiers. Mm-hmm. les comités. Mm-hmm. dem au niveau département. Mm-hmm. dem au niveau national. dem ci bureau politique bi. c'est pour cela je dis parti dafa am nu muy fonctionner. mais on ne fera jamais du neuf avec du vieux. tu peux pas venir comme ça dans un parti politique. xëy rek oui je suis candidat ça c' est de la dictature. c'est de la dic xam nga lu may yëgal nag da ngeen koy nangu ne vous les journalistes souvent certains journalistes. ndax dañuy waxtaan non non non dañuy waxtaan. non attends DG ñun mm-hmm. dama ni mm-hmm. da ngeen di lépp lu opposition wax. Mm-hmm. nitu opposition. c'est très bien. non il y a mais, pas de débat mais la am DG. waaw mais donc vous nous laissez parler aussi. voilà tax ñu jox la temps. mais c'est pour dama ni donc mhm. un parti politique classique normal doo xëy rek comme ça ne tu candidat mën nga bañ a nangu yow mi journaliste. Mhm. mais je parle avec les politiques ñi nga xam ne ne am nañu formation politique. c'est pour répondre tout simplement mhm. si ñi jàpp les la classe politique classique qui est là ay dictateurs lañu alors que ñoom ñooy dictateur ci seen biir parti lu ñu bëgg mooy am parti bi ñoom ñoo ko moom. mais ma la ñu àndal dénoncé wu ñu loolu lii ngay dénoncé gis ñu benn. waaw mais bi du ko doo ko dégg mënoo ko dégg je donne juste un exemple pour vous montrer que ñu bari jàpp nañ ni coor kii baax mooy kii faloo gut yaa ngi dégg. kii baax mooy kii faloo gut waaye dama ni celui qui veut régner par la violence ou bien par les armes na jàpp ni bés dina jot il périra par les armes heureusement le Sénégal nous sommes matures le Sénégal on va pas ku yaakaar ni dinañu jël réew mi teg ko ci loxo aventurier tu te trompes. Kan mooy aventurier? je ne sais pas ah a. non je ne suis pas dans ces détails là j'ai dit mais li ma xam nga dama ni j'ai dit je répète sénégalais yi am nañu mature maturité ba nga xam ne réew mi bu ñu ñëwee war a dem élection présidentielle ñu natt tous les candidats qui seront là mais jàpp naa ni du ñu jël réew mi teg ko ci loxo ab. aventurier. mais loolu nag tudduma kenn impersonnel. non kon déjà li wax noonu ñi ma woo tu veux. que dama jàpp ne langue politique bi aussi ay sénégalais. non non non tu moi je suis une personne du déglu mhm. moi je suis discipliné. Mhm. d' si sama non dañuy waxtaan. non non non dañuy waxtaan. non non non non mais aventurier c' est du français. c' xam nañ ko. je mu ni. Mhm. tey à l'image du président Macky Sall. le président Macky Sall n'osera pas yeewu comme ça dire que je suis candidat déedéet la candidature du président Macky Sall pour 2024 va être portée depuis la base justement sax et ça va être porté jarul wax bu bari ça va être porté man ma position euh, man ma position ma position c'est que tey li Barthélémy Diaz wax lii Ousmane Sonko wax. mooy que bu ñu xoolee ci texte ak loi président Macky Sall a droit d'être candidat. loolu li ñuy wax la ñoom mais. d'être candidat mais président en personne. te loolu loolu. loolu mooy dëgg. xam nga tey ñun politiciens yi. yenn saay nag dañ ciy boole caay-caay. daf ñuy wóor ni. Mhm. li ñuy wax nii du dëkk mais ñu wax ko gëlëmal askan bi utiliser askan bi jàpp nañu résultat yi yóbbaale ko. mais baax tamit Saliou bu ngeen toogee ci plateau yi fàttali li Ousmane Sonko wax li Barthélémy ngeen fàttali également. dama ni Macky wax ci. su su ma ñëwaatee su ma ñëwaatee si loolu nga wax mhm. moom président Macky Sall mhm. Mhm. wax na ko waaye ndaxte ndax président Macky moo nekk au-dessus de la constitution je suis d'accord avec président Macky Sall déglu nañ ko tey boo indee vaar yi ñu déglu président Macky Sall ma yóbbuwaat encore sinaaw ne moom moo waxoon ni bu yegsee dina def cinq ans au lieu de sept ans mais loolu jàpp-jàpp moom moo ko wax moom président wa Macky Sall aussi ngeen indiwaat vaar bi wax ni président Macky Sall moo wax ni personne na peut faire plus de deux mandats mais moi encore Saliou Keita ma ñëwaat si ne loolu position personnelle Macky Sall la président Macky Sall. d'accord nga ci wala d'accord mais moom d'accord man d'accorduma ak moom. yow daal da nga jàpp ne def. d'accorduma ak président Macky Sall man. bokk partem nekk ci task force boobu Macky président Macky Sall jëmmam boobu moo joxe position boobu mais position boobu est-ce que mooy position coalition bi est-ce que mooy position parti bi est-ce que mooy li nga xam ne ni moom la constitution bi di war a nangu yaa ngi may dégg loolu tax ma ne la ni tey président joxe na li mu bëgg doxalin bu mu bëgg waaye la constitution elle est au-dessus de tout le monde loolu moo tax ma man Saliou Keita du ma juriste mais dama déglu juriste yi te juriste yi nag il foog que ñu am position yi claire su ma jëlee tey su ma jëlee tey ku mel ni Doudou Ndoye ñépp a xam nañ ni il bon mais moom moo tax wax ni dara mënul tere président Macky Sall nekk candidat moom moo ñëwaat ne président Macky Sall du nekk candidat parce que xam lu tax question d'intérêt tey da ngay gis kenn ses intérêts sont là il gère ses intérêts wax loo xam ne ni c'est pour préserver ses intérêts demain il n'est pas dedans mu xalab xam nga lu tax da ngay jël ay de mbóoj te moom moo taxawoon fii di di xeex troisième mandat pour Abdoulaye Wade ma carte ma caution ana mu tey il est à côté de Ousmane Sonko dans le Yewwi la bàyyi ma terminer boo jëlee ku mel ni euh, le directeur Habib Sy Habib Habib naka Habib je connais même pas leur nom moom aussi il était directeur de cabinet de Wade mais ñooñu démb mënuñu taxaw pour faire la promotion du troisième mandat tey leurs intérêts et de l'autre côté ils disent qu'ils sont dans le Yewwi et c'est Yewwi là déglu ma rek il faut ma terminer c'est Yewwi là non damay terminer dama ne c'est Yewwi Yewwi Yewwi boobu Yewwi ne fera pas du neuf avec du vieux parce que tous ceux qui sont dans le Yewwi mais c'est les anciens du système et ce système-là qu'ils veulent combattre je suis pas d'accord toi aussi. li fi li fi xewoon je crois que ay souvenirs les souvenirs sont encore fraîches loolu kenn mënu ko kenn mënu ko fàtte. question troisième mandat la woon avec. li fi xew 2012 dama ne dama ne li fi xew li fi xew li fi xew 2012. li fi gis nañ fi lu ko gën a garaaw. xew na fi en septembre mars xaw ma mu am des morts. on de la candidature de Macky Sall. du président Macky Sall si vous voulez cette candidature là je te dis bu non dama ni xam nga waxu troisième mandat ça ça ne dépendra que du peuple sénégalais des électeurs sénégalais. Hmm. y a nuance est-ce que yéen tamit yéen a ngi may nopp électeurs yi. mon cher ami hmm. dama ni. Hmm. la candidature du président Macky Sall en 2024 doit être validé par la Constitution par le Conseil constitutionnel. maintenant léegi nag ah, ay kàcc la day c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi qu'ils disent. Hmm. cest di dire ñoom toogaguñ sax ñu commencé di wax loolu voilà ils sont en train de fausser le débat xam nga démocratie mooy ngay accepter l'autre aussi mais mënuñu taxaw tout ce l'État fait la gouvernement fait la parti au pouvoir coalition au pouvoir lu ñu def rek ñu indi si xëpp ci kaan sotti si cere ji alors que opposition ñu ngi fii ñoo gën a dangereux kuy dangereux aussi nomination yooyu amul euh, ay calcul je ne sais pas franchement personne ne peut la ñuy joxe par rapport ak nomination mais léegi ñun suñu avis itam duñ leen ko jox si si duñ duñ la jox suñu <laughs> avis xam naa li ñu dese ci temps <laughs> bëriwul ñu ñëw ci leneen en tant que directeur général du CICES e uh-huh. euh, CICES buñ koy dégg euh, ñu bëri dañ koy caricaturer ci. Euh, li nga loolu jeex na de. waaw li nga xamante ne moom mooy FIDAK foire internationale de Dakar ak concert yi nga xamante ne moom la fa artiste di def. Mm. mais qu'est-ce qui se passe là-bas exactement. entre waaw tey jii euh, bi ñu nekk nii. Mm-hmm. démb. démb moo nekkoon samedi. samedi wa tey. mais boo demee. waaw. Wally. Mm-hmm. Dip. Mm-hmm. ak. Euh, Viviane ñu ngi fa di tëgg mm-hmm. kan mooy tëgg un jeune promoteur Abdou Karim Taha mm-hmm. je l'ai démarché loolu mooy benn di wone rek taxawaay bu bees bi nga xam ne ni am nañ ko au niveau du CICES mm-hmm. di wax ni président de la république ba mu ñu dénkee kër googu mu nekk kër goo xam ne ñun dañ fa doon dem ba ñu nekkee gune di dem si lu ñuy wax la foire de Dakar waaye dañu dem ba sénégalais yëpp di ko wooyee foire alors que mi ngi tudd ses centre international du commerce extérieur du Sénégal. c'est ñu bëri foire lañ koy woo parce que foire activité la ñun ñu dem balaa ñuy ba ñu dénkee lenge bi balaa ñuy def quoi que ça soit lu ñu def lu ñuy wax l'état des lieux. état des lieux ñu mesurer véritablement le poids de la mission bi nga xam ne lañ ko confier poids mis état des lieux ba buñ ko defee nag def ñu révéler lu bari. comme lan comme lan mooy que liñ fa fekk ne répondait pas aux attentes légitimes du grand public. Mm-hmm. loolu moo tax ñu liggéey nu mu gën a gaawee si une nouvelle feuille de route. Mm-hmm. feuille de route boo xam ne ni elle s'inscrit dans une dynamique du renouveau du CICES. mais également de son activité phare muy la foire internationale de Dakar orientation bi mooy nañu wuti ay partenaires yu bari nañu am ay activités yu bari pour ñu booster le taux d'occupation et de fréquentation mais lu ñu njëkk a def mooy parce que centre international du commerce extérieur du Sénégal avant d'être international on est national d'abord ñu dem signer une convention avec l'union nationale des chambres de commerce du Sénégal lu waral loolu parce que CICES e warul nekk Dakar kese kese kese c'est pas une entreprise une structure régionale on est national moo tax ñu war a au-delà de la FIDAC muy foire ñu war a dem si région yi ñu organiser fa ay foire di décentraliser di décentraliser nos activités mm-hmm. wax nañ ni on va organiser la, la foire de Saly Saly Expo parce que sali Portudal ñëpp a xam ne ni c'est c'est un carrefour touristique, touristique économique culturel et cetera ñu dem war nañ fa organiser Saly Expo léegi avec les chambres de commerce parce que CICES parc d'exposition et de congrès la nous avons ñun miroir lañu on doit montrer les produits des sénégalais les services des sénégalais fexe ba opérateur économique sénégalais joxante loxo fexe ba opérateur économique sénégalais ak seni homologue yu nekk à l'étranger joxante loxo pour que benn ñu gën a positionner euh, euh, euh, Euh, sunu opérateurs économiques yi renforcer la coopération commerciale bilatérale entre le Sénégal et l'étranger donc dans les régions dinañu organiser ay foire parce que région boo jël rek am na ay potentialité économique tey bu ñu demee sali organiser sali Expo demee ñu dem Kaolack organiser euh, le salon de l'arachide pour montrer l'arachide et tous les produits dérivés yoo xam ne mën na ñëw à partir de l'arachide ak yeneen structures yu mel ni banque affaire yooyu parce que ñun loolu mooy suñu métier kon bu ñu ko defee au niveau national au niveau parce que wane rek que succès c'est pas régional on est national mais également au niveau international au niveau international tey gis nañu rencontré nañu pratiquement toutes les représentations diplomatiques yu nekk fii au au Sénégal seeti leen def ay déplacement dem si seen réew fexe ba xool naka la ñu mënee def ba gën a renforcer coopération commerciale bi looloo tax tey lu mel ni Turquie ñu waajal déjà ñu waajal lu ñuy wax euh, déplacement yi foofu waxtaan ak autorité euh, diplomatique sénégalaise ah oui oui parce que li ñu bëgg mooy parce que boo xoolee Sénégal ak Turquie y a beaucoup d'opportunités au plan commercial au plan économique yoo xam ne exploité wuñu ko on parle beaucoup de la coopération diplomatique mais la coopération économique tey dafa nekk actualité moo tax tey opportunité yi nga xam ne exploité wuñu ko ñu war ko mën a saisir tey sénégalais yi dañuy dem Turquie tout le temps di jënd ay marchandises mais y a des sénégalais yi nga xam ne ñi ngi fii bëgg nañ dem Turquie mënuñu dem bëgg nañu produit turc met euh, euh, chair na léegi nag ñun ñu wax ni naka la ñu mënee def ba dem seeti ay turc ay sénégalais surtout yu nekk en Turquie fexe ba dimbale leen ñu ñëw ñu organiser la foire des produits sénégalo-turcs. très très bien rapidement nga nga daanale foofu xam naa li ñu dese ci waxtu DG bëriwul. Mhm. ñu wax ci leneen parce que responsable APR Dakar Plateau nga récemment gis nañ la. Euh, stade Galandou Diouf de de Rufisque lan moo waral sa teewaay foofu. waaw c'est vrai que Saliou Keita je suis un natif de Dakar Plateau du militer à Dakar Plateau mais woy skorog dem na stade Galandou Diouf à Rufisque di seetaan nawetaan. Mm-hmm. nawetaan boobu lu ma waral lu a loolu mooy dama doon seetaan euh, ASC Lebu gi mm-hmm. bi nga xam ne ni wax dëgg yàlla ba ma toxoo fi ma nekk tey. Mm-hmm. mooy cité Bergamo au passage di leen nuyu ndaxte cité Bergamo wax dëgg yàlla dalal nañ ma si jàmm waaye waxtu yi ñuy wax ni mbënn bi sonal nañu inondation bi sonal nañu quartier bu bees la may profiter si émission bi di wax le sous-préfet de Sangalkam di wax le maire de sangalkaam ak les autorités administratives ak municipales yëpp nañu dimbale ngir yàlla dans le cadre plan Orsec ñu ñëw jàppale ñu ndaxte gisaguñu kenn. très très bien loolu loolu de cœur la. mais nag mhm. tey jeunesse bi fa nekk aussi ñun on est devenu national on n'est pas seulement de du plateau le président Macky Sall fu ñu mën a dem rek pour jàppale askanu Sénégal. ñun dinañ fa dem loolu tax fi ñu dëkk d'abord il faut ñu jàppale leen loolu waral ma def déplacement bi seeti match seetaan jeunesse bi mhm. te fan yi di ñëw dinañ leen apporter un soutien par rapport ak li ñuy yëngatu. Mhm. mooy euh, mbirum nawetaan bi. très loolu loolu am na solo euh, cri de cœur bi espérons que autorité yi nañ ko dégg après. Mhm. réagir ñu war a pour loolu mun a saafara xam naa temps bi ñu amoon pour émission bi jeex na dañ lay bàyyi nga waaw di di la wax encore une fois merci beaucoup Thior. Mhm. Euh, di wax ni émission bi gàtt na waaye jàpp naa ni liñ fi jot a wax sénégalais yi déglu nañ ñu dinañ si jëlee dara te du ñu jëppi aussi. waaye lépp loo xam ne nii tamit jaaru si yoon nañu xam ne ñun ñoo mata di rek mm-hmm. di wax internet yi képp kuy seetaan ñu ngi jéggalu à ce niveau bu fekkee wax bi am na lum si njagas mm-hmm. mais liñ ci wut rek mooy waxtaan loo xam ne dina jëmale réew mi kanam mm-hmm. te réew mi aussi ñu jiital askanu Sénégal parce que amuñu lenn lu dul les populations donc di wax ni euh, maa ngi gën a euh, téere sunu engagement aux côtés du président de la République Macky Sall qui certainement avec le soutien ou bien li ñuy nas si biir parti bi dinañu gën a taxaw askan bi par rapport ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund. Mm, très bien mbokk internet yi mu nekkoon seen émission euh, seen débat fii ci Sénégal ñu amoon mbégte di ci dalal euh, Saliou Keita nekk responsable APR Dakar Plateau. membre de la task force républicaine ñu leen di jox dig daje ajuma bi di ñëw ci beneen numéro seen débat